Euh, bisimila ci xibaar yi déclaration moom lañ doon xaar mu war a euh, tukkee kon ci xalifa Sall waaye nañ jàpp kon loolu yi du mujjee am ndax moom meeru Ndakaaru bi dafa jël dogal kon daal di du moyu audience bi lànk ne kon du ci teew gannaaw ba nga xam ne ay waakaam démb dañoo gedd ndaje mi euh, dal di ñaawlu taxawaay juge Demba Kandji bi ñu ne dafa wone ak PTM ci procès bile kon tey jii ñoom Mbaye Touré ñoom seen lañ doon déglu kon lu jëm ci audience bi dañ ci dellu soit ak suñu naataango ba ñu fa yabaloon di xooxaan ndong bu amee ñu am leen métti lool ñoom ñoo di ndaw ya nekkee la ci diwaanu Njaareem te ñu jural leen ci projet bii di palam yóbbu leen ci àll ba ñu fay jàngale dañoo booloo ñoom ñëpp utali makkaana groupe fajir yi nga nekk ca diwaanu Kaolack di nga nekk ca diwaanu Mbàkke di ñaawlu situation bi ñuy dund ndax toog nañu lu ci tolloog juróom-ñeenti weereel yoo xam ne ni jotuñu seen payoor loolu lañ ne mënta la wéy seen xaalis lañuy ñuy sàkku ñu fay leen ko lu ko moykat ñoom ñëpp daañu bàbbeeku utali Jurbel utali fii ci Ndakaaru fas yéene taxaw ci buntu palais ba Moustapha Ba ma wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Mourou Makhtar Sarr. Euh, ñun li ñu naqari mooy dañoo liggéeyal palam euh, am une benn année scolaire boo xam ne nii muy 2016 2017 bi ñu waroon ñu koo fay te fayuñu ñu ko boobu ba nii ñuy daw ci seen ginnaaw. bu ñu interpellé directrice bi ñu ñuy jox ay promesse ay dates yu a boo sonn nan trop trop trop trop sonn nan trop suñu salaire daal lan nan ñi ngi ñée ngi ci six mois ñi ay sept huit mois neuf mois de salaire voire même mënuñu cee jot sonn nan lool sonn nan lool léegi nag dañuy woo autorité yi da leen di interpellé directrice bi madame Mbacké ministre de tutelle bi soxna Ndeye Saly Dieng ministre de la femme de la famille ministre des finances même le président de la république chef du gouvernement le premier ministre nan ñu jàppale ci suñu salaire yi ñu jot ci ndax suñu ñaq la dañ koo liggéey nan ñu ci jàppale li ko kale nan ko décanté ñu jot ci suñu salaire yi sonn nan ay père de famille lan am na ci ñoo xam ne ci diggante bi sunu borom jël na leen fii fayiwun ci am na ci ñoo xam ne nii am nañ problème de famille ndax amuñu si amuñu seen i fonds yu tas ngoro ngoro yu demee nii en tout cas daal li ci nekk lépp bari nan dañoo sonn nag moo tax tey ñu génn waaw lépp duuru li ñu fas yéene def mooy def benn ultimatum euh, autorité yi na leen lii bu sa buñ jotu salaire yi feek fan yu néew dana jar ñu jël suñu tànk woo Kaffrine woo région Diourbel ñu àndandoo dox bu aaje woo sax ñu taxaw ci kanam pale int woo président de la république na ko jàppale ñu suñu salaire yi mu jàppale ñu ci bañuñu ci bañuñu ko euh, nous sommes au nombre de cent deux cent deux muy région Kaffrine ak région Diourbel jamono gàddaay na ci yéene kaay gi di la Soleil ñi di liggéeykat yi jaaratuñu tal ak seen njiit Yaxam Mbaye mi ñu ne ba mu fa nekkee ba léegi daanaka lépp loo xam ne ay avantage la woon te ñu am ko ci kër gi dafa nekk di ko di leen ko xañ ndànk-ndànk euh, waaye loolu moom du ñu ko nangu te seen bakkan lañ ci tekk Maguette Ndong mooy njiital SYNPICS section soleil am na ci ay kàddu yu mu ci rotal ñu teew teewlu ko ci téléphone Abdou Khoudous Diallo. waaw tey booy xool euh, ñun dañu génn benn benn benn communiqué mooy li ñu ko gisee noonu communiqué bu nga xam ne daana ko li nga xam ne mooy SYNPICS syndicat SYNPICS ak euh, SNPS ak STLS mooy trois yi nekk ci kër gi. ñu ko génn pour euh, wax di naxarlu wax dëgg-dëgg situation kër gi mu toll tey jii ndaxte tey solo yi ñun dañu yaakaar ne yaa xam mbay bu ñëwee tey jii ak euh, vraiment dessin am day ñëw liggéey ak ñun ànd ak ñun yaakaar nañ ne aussi travailleur bu lépp lu nga xam ne xeex na ko ba am ko nag dañ ko war a renforcer waaye en cause te tey lañ gis ne loolu la commencé di def tey jii li nga xam ne mooy accord cadre bi nga xam moom lañ signé woon ak euh, l'ancienne direction générale ak Cheikh Ka en 2015 moom dafa ñëw non non daan na ko li ngeen signé mu ci xool ay ponc yoo xam ne da ko naan lii baaxul lii baaxul dama koy dindee kenn xamul ñun boobu léegi dañ ko bàyyi waaye yu nekk def nañu ko wax dëgg même pour naan ndox tey jii soleil mën naa wax ne mën sax da nga koy jëndi ndox dañ koy jëndi loolu nag dañ ne c'est anormal ak yeneen yi nga xam ne tamit boo xool journaliste yi pour ñu dem sax daanu ko ci euh, yenn euh, région yi problème la ndaxte nee na fi mu nekk ji amul xaalis fi mu nekk bu ñu demate benn reportage ci biir euh, Sénégal ñun dañ ne loolu du yoon ndaxte Soleil li ko gën a ne dëgg dëgg dëgg mooy ay reportage de terrain ci biir Sénégal te loolu bu dee bu ñu ba nga xam ne du amati nag problème lay dalee lay jur moo tax tey jii ñu bëggoon alerter ci moom di ko alerter et di alerter aussi l'opinion leen nag li nga xam ne moom mooy raam fi nekk nii daanaka baaxul ñun gis nañ la wax dëgg dëgg fi mu jëmee ak ñun baaxul donc il est temps tey jii moom yaa xam mu taxaw wax dëgg dëgg ah, taxawaat xoolaat boppam et puis liggéey ak nit ñi dañ ko bëgg lii wokk liggéeykat yi nekkee foofee ca soleil moo xur yi seen nattango yi nekkee ca kër gi di RTS ab ndaje mu yaatu daañu ko amal ci ngoonu tey jilee war a seen diggante ak taskatu xibaar yi ngir ñaaw lu jafe-jafe yi nga xam ne nii seen kër gi mi ngi koy dundu jamono ji lu jëm ci ndaje moome daañu ci jël sax incha allah rabbi ci sunu yeneen i jotaayu xibaar askan wa dëkkee fële ci Kidira ñoom daal ñu ngay tëmb li ko waral moo di dex bi moo fees dell daal di fax utali seen dëkkuwaay yi lee gannaaw taw yu métti yi fa daana bikk loolu nag juraloon na askan wi ay jafe-jafe ba tax ñu gàddu seen yoxoo topp ci mbedd mi yuuxu wàllu seen i kàddu suñu xibaar yi weesu dégg ngeen ci dégg ngeen ko ci euh, ab ndaje mu yaatu amal nañ ko ca diwaanu Touba ngir waajal màggal gile loolu doon occasion ci kilifa yi nga organisation bi yëkkati seen kàddu daal di ci kilifa yi ngir li am daaw ci màggal gi maanaam ñàkkum ndox mi nañu def seen kéemtulaayu kattan ba mu am ci màggalu ren jilee Serigne Ousmane Mbacké mu wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Mourou Makhtar Sarr. di wax rek ne comité bi moom ay ndaw yu ñu taxawal lañ ci ndigalu Serigne Serigne Bassirou jiitu ko seen yitte mooy màggal gi jëmmi ci ku jiite nag muy Serigne Bass en tant que porte-parole xëy na moom. ay prérogative mu weesu na màggal gi waaye nag ñun ci màggal gi lañu ñu liggéeyloo moom lañ ñu ci moo tax ñu ñeme taxaw fii di wax sinon déggoonu ci leneen kon foofu lañuy mën a yem ñu wax ne euh, li munta ñàkk ci màggal gi xameesu ko ci ñi fi teew donc lépp lañ soxla waaye nag am na ci loo xam ne bu manqué wala bu amulee ñi ñëpp yëgan yëgandoo par contre am na loo xam ne buy bu amuti ñenn na koy yëg loolu def naa mën a classifier suñuy yitte par rapport ak bis boobu lu mënul ñàkk la mu mel nag aborder nañ sujet yëpp di ci jiitu muy sécurité ci mënul ñàkk wér-gu-yaram ndox ak yeneen ak yeneen communication yooyu yëpp aborder nañ ko di séentu nag ak yaakaar ju mat sëkk ne yitte yi ci yéen ñëpp ngeen am kenn ku ci ne ak responsabilité ba mu yor mu am yéene faj yitte jooju. ay jumtukaay yu takku lu ci demee ni ay chaise ay baas ba ci ay pa aj ba ay bool lépp ñu xayma ko mu toll ci ay koppar yu takku moom la Mamadou Mamour jàlloo mi ngi gisal mouvement Dolli jël daal di koy baaxee benn mbootaayu jigéen bu nekkee fu fekkee njaañ ca Louga loolu nag di dugg ci politique bi mu taxawal ngir pousser jigéen ñi ñu mënal seen bopp ndaje mi sax occasion la woon ci docteur Seydou Coulibaly mi vice président mouvement Dolli yi daal di tontu ñi wër di wax naan campagne déguisée la ñuy def dañuy dem ci Louga fekk fa Omar Kayre soxna ba présidente groupement de femmes la ci commune bu Njaañ groupement bokk na ci juróom-ñaar yi nga xam ne tey jii jox nañ leen lu toll ci ñaar fukk ak juróom ci ay chaise ay basang ak yeneen i xeeti ndàpp doxalinu mouvement dolli bii nag mi ngi bokk ci programme bi nga xam ne mi ngi koy tëral ci département bi ngir fexe ba jigéen ñi mënal seen bopp équipement yi nag ñu leen jox tey ñëw gannaaw bi nga xam ne jox lu toll ci cinquante mille francs ngir ay laytaayu kees te toll ci fukki junni groupement de femme yooyu sax te nekk ci département bi toll ci lu ëpp juróom benn téeméer man fi mu nekk maa ngi dëkk Njaañ mu formé ñu ci eau de javel ak céréales fi mu nekk chaque mois maa ngi jaay ñaari junniy butéelu eau de javel di ci am bénéfice boo xam ne maa ngi koy dugal ci sama kees sans compter céréales bi et cetera et cetera et cetera tey mu jox ñu matériel bi ma di leen xamal ne ñun kontaan nañu ci Mamadou ndax politique bi mu ñuy defal mooy politique de développement mi ngi liggéeyee président Macky Sall. bu dee docteur bali nekk vice coordonnateur bu mouvement Dolli Mamadou Mamour Diallo deful lenn lu dul sàmmook li nga xam ne dige woon na ko ak jigéen yi. dañoo wootoon def benn cérémonie rek pour tàmbalee jox ñi mais bépp groupement bépp cellule bu ñu formé ci biir département ci biir commune gi ku nekk danga jot sa sa sa matériel da jot sa financement même cellule yooyu cellule yooyu bu nekk boo lañ ci aussi ay caisse. caisse de solidarité yoo xam ne day tàmbali jigéen ñu mu def ay épargne seen biir di dajale épargne di ko lebale seen biir di def ay bénéfice Mamadou Mamour Diallo ci doole boppam ak doole ñu muy àndal ay partenaire am ñu dimbali suñu jigéen ak suñu jeunesse waaw boo xaymaa matériel ñu jox jigéen de groupement bu nekk lu mu néew néew néew mi ngi tourné diggante téeméeri junni ak téeméer ak euh, fanweer moom docteur bali nga xam ne moo doon jiite cérémonie de remise bi di indi ay leeral ci activité yi nga xam ne ñoo ngi koy def ci biir département bi te ñenn ñi di wax naan campagne électorale déguisée la. Mamadou Mamoun Diallo ku ko xam-xam ne dafa yàgg ci social bokk na ci qualité yoo xam ne moo tax président tànn ko woo ko mu ñëw taxawal ko ci ci njàmbur donc soxlawuñu débat ñu di def ay campagne dégisé heure bu campagne jotee da nga ñu gis ci terrain bi ñu campagne te defe naa ñun ñu ba campagne jot ñuy liggéey. ñëpp mën nañu seedeen tey ba léegi benn mouvement politique ñi koy dégg heure bu ne moom mooy dolli yi loolu kenn mënu ko naatable moom vice coordonnateur bu mouvement dolli bi terewul muy woo Lougatois yëpp ñu àndandoo liggéey ngir gën a suqali département bu Louga Oumar Kayre Louga Walfadjri gannaaw ba ñu gisee sëriñ Mountakha Bassirou Mbacké mi xalif général de Mouride euh, FNR di mbootaay gi dajale parti politique yi féete ci kujje yi gisee nañu démb ak njiital jàngu bi monseigneur Théodore wala sax monseigneur be seen tànk nag moo doonoon jéebaane fa njiital réew sàll Sall sàkku ci moom mu waxaak ak moom dellu si ko ci yoon wi mu jël lu ko mooy que élection présidentielle yi di ñëw Sénégal mën na fee jaare tàbbi ci gutta ndaje moomee Abdou Khoudoss Diallo Mami Kanté ñoom lañ fa yebaloon ñii bootu ci kuréel bu ñu duppee Front National de Résistance daa di amal ndaje ak l'archevêque de Dakar kii di Monseigneur Benjamin Ndiaye gannaaw bu ñu génnee ci ndaje mi le ñoom ñi le di xamleel la ñu jot waxtaan ak archevêque bu Ndakaaru dama ñëw tey euh, seet si Monseigneur Benjamin Ndiaye ak kilifa jàngu bi euh, waxtaan ak moom bi suñuy njàqare gunu déglu bu baax a baax a baax a baax gis ngeen li ñuy wax parrainage bi euh, wax nañ ko ko bu baax a baax a baax ak ni mu demee ñu xamal ko itam ne ko euh, dafa mel ni ñi fi ne dañoo bëgg tànn ñi nga xam ne ñoom la ñuy jàkkaar lool ci làmp ji nu wax mbirum Karim Meïssa Wade mi nga xam ne bind na ci liste électorale yi waa ministère de l'intérieur jël seen responsabilité sempi ko ci liste électorale yi xalifa Sall itam maire Ndakaaru moom dañ ko jàpp tëj ko buñ buñ ko tëjee waaw ay awokam dem ci attekaay ba nga xam ne tribunal ba nee na loolu sàmmoonte wuñu ak moom xamal nañu ko itam ne ko euh, doxinu ëttu attekaay ci senegal itam jàq nañu ci lool ci waxtaan bi li itam dellu nañu si mbirum imaam Aliou Ndao ñu xamal leen ne imaam Ndao nga xam ne bërki démb lañ ko bàyyi ñetti at yàlla ñu tëj ko ko kaso ne terroriste la xëy bis ne weer lañ ko condamné avec sursi d'ailleurs maanaam waru leen sax tëdd kaso ah loolu nag réew moo xam ne mi noonu lay doxee itam ah ñun daal loolu la ko wax am nañ ci njàqare ndax ñun jàmm la bëgg ci réew mi ak salaam bu nu sañoon day ñu nu ko séqal delloo si seen xel toog ak ñun waxtaan ah su fekkee defu ko nag kon day mel ni kon léegi bëgg amatu doole moo am lu dér lu ci góobe gar ñoom ñi le féete ci kujje gi fas yéene nañu nemmeeku këru diine yépp ngir daal di jéebaane doxalin nguurub Sénégal ci doonu te yëngatu ci wàllu gardiennage Mame Mbaye taxawaloon ko démb moom dafa am ay yu ñëw ànd ak seen soxna bëgg nangu entreprise boobu la ci seen yoxo yóbbee nag ay doom ak ay sotam jóg lànk ne mbir yi du demee noonu seen bakkan nag lañ ci teg dañuy dem ca Kaolack fekk fa Alassane Ba benn huissier de justice ak ñaari woto police ngir génne si njabootu fa alaaji may Mbay ci entreprise yi nga xamante ni moom moo ko taxawaloon moom ko tey ji agent de sécurité boobu nekk ndonoy doomam ñoom njaboot gi ñëwaat ci nu mbir yi demee. ànd na fi ak benn huissier ñëw fi ak benn commandant de police mais ñoom ci seen biir au plus profond xam nañ ni sax lii ñu leen indi gënalu leen. Mais comme moom elle n'hésite pas à faire ce gannaaw bañ ko tabbee mu nekk administrateur agence de sécurité du Sine Saloum moom Abdoulaye Mbaye ak i rakkam gis ki nga xamante ni moom la ñu dénkoon a kër gi te mu toog fa lu toll ci juróom benn at bañ ne du génn bàyyi leen ak seen ndono te moonte njabootu mbay nee nañ ca ba yoon atte ñoom la joxoon dëgg. entreprise Assal dafa nekk en délégation judiciaire depuis 19 ans. une entreprise en délégation judiciaire maintenant que le tribunal bi mu xoolee ne xaal xool ne entreprise la mu ne ko nañ ko delloo famille bi depuis le 30 avril la ñu waroon a jëlaat Assane bi ñu ñëwee le 30 avril ki nga xam ne moo fi toog muy ndaw si ñuy wax bu Ndiaye lank ne moom du fi jóge ba président tribunal bi nga xam ne moom moo yore àtte euh, bu mag bi joxe ordre ñu expulsé ko génne ko ci béréb ñu ñëw toog fi bi fi toogee ak léegi nag defe naa ne ñaar fukki fan la waaw bu baree ba bari ñaar juróom léegi mu demaat cour d'appel cour d'appel joxaat ko ne moom la ñëwaat toogaat fii ñu ñu génnaat ba abadan xanaa kay ñu dee rek benn yoon fii ci bureau bi mais duñ fi génn. ñoom njaboot gi li métti leen loolu ba tax ñuy jël askan wi yëpp ñu doon seen seede ndax mbir mi bañu ci ñàkk bakkan dara du tax ñu bàyyee kenn wala bàyyee lenn seen ndono. dañuy bañ nag li fi daloon ci bambara yi dara. moo tax ñu jël euh, euh, réew mi yëpp à témoin que pare nañu pour ñoom ñu toog fii suñ bureau fii. parce que c'est nous déshonorer, c'est nous offenser. Ça, on vous le dit, soyez prêts. Lu ngeen dégg rek nous on est là, on est prêt à mourir pour sa du fekkee am na ay mbokk na ko ay mbokkam oo waxal ko. du fekkee jëkkëram mi ngi moom mi ngi sëy na ko jëkkëram oo waxal ko. parce que lii nii jaay dañ koy nag gàcce dañ koy nag te ndaw si am na ñaar ñooy ràppale si benn ñun nag duñ fi jógee tey duñ fi jógee ëllëg. booloo doon benn taxaw temm la njabootu mbay def ndax nee nañ du ñu mus a nangu kenn jaay leen doole gàccal leen ci li nga xamante ni ñoom ñoo ko moom ndax asaal si seen baay lañ ko donnee Kaolack Alhassane Ba Abdoulaye Dia Walfajri bu amee nag ñu yàkkamti lool tàngoor wi tàngoor wi tàggoo ñoom ñoo di borom salon yi ndax dañu gis ne ah, ba tàngaay wi teroog léegi daanaka gisatuñu benn client muy loo xale jigéen ñi dëggal ndax dañu jàpp ni ah, tàngaay ak maquillage àndul daf leen di jural ay picc yu bare Adja Tigi Danke Ba Massila Seck reportage. maquillage si tàngaay bi doon na lu jigéen yu bëri di daw ñu bëri si ñoom jàpp ni coono rek moo leen si topp. xanaa gisoo ni ma def sama kanam bi maquillé wu ma ndax dafa tàng da ngay da ngay def pour talc booy sa kanam pour naaj bi bañ la lakk produit yi moo tax boo paree nga jël sa vaseline wala sa lipp nga def sa tuñ. tàngaay bi moo tax xam nga ak maquillage yeeg produit produit la xam nga produit yi baaxul ci kanam. mën na la jox ay bouton tàngaay bi. nam sax soppuñu maquillage bi si tàngaay bi wante am na si ñoo xam ne suñuy génn faaw ñu cappal cappal tuuti seen i kanam. tuuti rek parfois bu ñu waree génn xam nga il faut nga laal tuuti nag defar kanam bi tuuti mais bu dul loolu nag moom dañuy relaxer du ñu def maquillage dañuy def lipo mu simple rek def collier bët yi affaire genre. parce que ñàkk bi da ngay niin xam nga maquillage bi dafay changer quoi mieux vaut nga def poudre bébé. xam nga sa kanam xaw a briller tuuti. salo yi moom gisatuñu kenn ñoom ñooñu lee ñu jàpp ni soxna yi dañuy tàmm toog seen kër yi ci tàngaay bi def lu simple rek. waaw tàngaay bi moom gars xam nga instant bi ku ci defar sa kanam affaire boo génnee da ngay xaw a froissé noonu gars yi dañuy obligé toog seen kër yi xaw a nettoyer seen kanam yi dem tàngaay bi moom liggéey moom du dox moom franchement du dox bu baax moom. jamono tàngaay bi ñu nekk jigéen ñu bëri duñu bëgg di makiyewu wala sax suñ koy def tuuti rek lay doon ñu jàpp ne mën na leen indil ay gàllankoor lu si wala sax suñ ko defee dañuy faare ba tax na soxna yu bëri dañ ciy taamu naturel bi donc bu njëkkoon waxtu wu ñu ko mosaan tudd rek xel yi dafa daan dem ci suñu mbokki chinois yi waaye tey jii allée centenaire soppaliku na doon ab marché sénégalais doon télé am na ay benn benn chinois waaye la nekk ci ay magasin yëpp li ci ëpp daanaka tey ji tàbbi na ci loxol sénégalais yi lee jëmm la Masila Seck allée centenaire si njëlbeenu atum 2000 bëri woon na lool ay chinois yu nekk si bile bërëb lu ni mel soppeeku na marché chinois yi comme ni ñu ko duppee daanaka sénégalais yi léegi ñoo fa ëpp ñoom ñoo ñe dañoo nangu rek li di njënd meeg njaay mi si loxo chinois yi waaye dëkk yu moo doxu si ñoom war ñu ñibbi ñu ñibbi par pann benn benn waaye ñun sénégalais moom ñu ngi si liggéey nekk si liggéey quoi waaw ñuy dellu par ndànk-ndànk de fii feesoon na dell cantine yëpp suñu ay ñoo ko jëloon waaw ku fi ñëw bëgg liggéey sax naan ba cantine yëpp joxe ñu ku génn ñu laaj ñu jël cantine quoi ndànk-ndànk. yàgg bawul dara Moussa Thioub moom da doon jàppale benn chinois si njaayam mu mujjee dem ba nekk ab commerçant nii mooma. chinois yi fi nekkoon ñu si bëri dañoo mujj ñibbi siin am na ñu fi des mais ba léegi am na ñoo xam ne dem nañ léegi nag Sénégal yi léegi ñun ñoo fi nekk dëggal suñu bopp di jël si magasin yi. di fay comme ni noonu Sine di fayee xam nga di góorgóorlu di dem Sine di voyage di indi bagage di jaay léegi loolu moo tax léegi marché Sénégal la ak marché chinois noonu la fa demee. nekk du chinois kese parce que ñun dañuy jaayante ak ñoom dañuy liggéey ñuy liggéey di indi bagage comme ni ñuy indee bagage di fay magasin comme ni ñuy fayee magasin bu njëkk ba nag magasin yi dañoo seeroon ba nga xamante ne Sénégal yi ñemuñu woon ko léegi pour l'instant nag ñu ngi koy jël parce que boo ko defu jaay noonu la fa jamono gi ay benn benn chinois ngay gis fii si allée bu centenaire ñu bari si ñoom ñibbi nañu seeni dëkk ñeneen ñi ñoom dañoo des Sénégal bàyyi li di njaayub yére ak dàll di yëngu si yeneen i mbir lu si mel ni njaayum lekk ak tabax kër. di ko luye. kon mbokk yi ci foofulee ci la ñuy tàbbise ak yéen ci ñaareelu xaaju xibaar yi tey jii benn ponk la te mooy li ci yéene kaay yi ki ko nafar Abdoulaye Bopp la. dalleen ak jàmm candidat lay doon ci élection moom Cheikh Hadjibou Soumaré jot na ko fësal yàggut xamle ne dina bokk ca ñey dagaan baatu askan wi ci élection tànneefu njiitu réew moom Hadjibou Soumaré jot na fee ñaawlu tolluwaay réew mi dal na ci nguruk Macky Sall bu ñu sukkandikoo ci Walf Quotidien mi ñu xamal ne tey njiitu réew mi Macky Sall sas na ay nitam ngir ñu dal ci Hadjibou Soumaré maanaam sullil ko ay mbootam kenn ci jege ñaale njiitu réew mi Macky Sall di Youssou Touré jàpp ne Hadjibou Soumaré mi boppam lay nax bëgg a nax askan wi ne bu fekkee ne ndombal tànk yamu amee woon ca nguruk Abdoulaye Wade tey mun na ko réew mi nax na xamle ne Hadjibou Soumaré munta am ndam ci la woote ndax bu amee ña koy wooteel Youssou Touré ne du weesu benn yoon 0,1 pour cent bu fekkee ne am nañu ko parrainel keneen ku ko pareel ci biir yéenekaay bi di Mor Ngom yekk na lu mel ne xeme Hadjibou Soumaré mi jàpp ne mun naa saafara jafe-jafe askan wi ci taxaw seetlu gamu def ci réew mi Mor di fàttali ne doonoon na fi premier ministre moom Hadjibou Soumaré jiite woon na fi commission IMOA waaye ndombal tànk yi ni mel bokkul ak jiite réewum Sénégal keneen ci jegeñaale njiitu réew mi Macky Sall di El Hadj Kassé yaakaar ne Cheikh Hadjibou Soumaré mi le mooy doon plan bépp PDS ndax Karim Wade munta wote leneen ci ay kàddoom ci Walf Quotidien moom El Hadj Kassé daal di fàttali ne Hadjibou Soumaré moo wutu woon njiitu réew mi Macky Sall ca poste premier ministre ca nguurug soppi ga woon tey yaakaar na ne war naa wutu njiitu réew mi Macky Sall ca pale ba du ci élection yi ñu jëm xëy na geneen direct info ne neexul ba neexul waaye Hadjibou Soumaré candidature am tiital na lool nguurug Macky Sall xañ na leen nelaw direct info yéena kaa bi dikkaat ci ay kàddoom yam fi jot a yëkkati keroog moom Cheikh Hadjibou Soumaré xam le tiit na lool ci réewum Sénégal ak tolluwaay nguurug Macky Sall ne démocratie si jot na feetu muranke lool askan wi amatuñu sañ-sañu wax amatuñu sañ-sañu ñaxtu ca la leen metti yoon moomatul boppam Hadjibou Soumaré wax moo di ne ndajeb waxtaan dox na ci diggante Cheikh Hadjibou Soumaré ak njiitu réew ma woon Abdoulaye Wade ca Marseille jàpp Doha jot nañ fa waxtaan Farba Ngom di kenn ci jegeñaale njiitu réew mi Macky Sall xamal Hadjibou Soumaré ne CV bu riche am fanweeri million munta tax nga yaakaar ne mun nga am baatu askan wi El Hadji ci direct info daldi ko feelu xamal a amal njàngat gu yaatu ci tolluwaay réew mi gis na ci jamono ji nga xamante ne mu Sénégal tar na lool metti na lool ci jamono joojee la njiitu réew mi Macky Sall jël lu tolloog benn milliard nar ko tabaxee makkaanu APR ci jamono ji nga xamante ne réewum Sénégal la mu amee ci bor toll na ci ñaari téeméeri milliards ak lu teg njiitu réew mi Macky Sall jël lu tolloog benn milliard nar tabaxee makkaanu APR xamante ne lu tolloog juróom-ñaari téeméeri chantier lu teg taxaw nañu ci jamono ji ndax ñàkkum financement njiitu réew mi Macky Sall fab lu tolloog benn milliard nar ko tabaxe makkaanu APR Dakar Times ne ci jamono joo xamante ne askan waa ngi dund ñàkkum ndox gu tar njiitu réew mi Macky Sall jukki lu tolloog benn milliard nar ko tabaxe makkaanu APR maanaam siège u APR yéen a bi gis ne njiitu réew mi Macky Sall jafe-jafe askan wi soxalu ko benn yoon jafe-jafe réew mi soxalu ko yéen a di Vox Populi ne li askan wi di dund ci réew mi rawatina jafe-jafe ñuy jànkonteel doon soxal lool rek élément bi di Tiken Jaffa Coly ay kàddoom ci biir yéenekaay bi di Vox Populi lam ca gis moom Tiken Jaffa Coly gis ne Afrique mi ñu ne ñay ñaxtu say su ne ci seen salon la ñu toog waaye li xew ci réewum Sénégal ak ñàkkum ndox mi askan wi yëpp bu ñu jógoon ñaxtoondoo ci mbedd mi kon jiitu mi Macky Sall def ko soxlaam ci saasi Tiken Jaffa Coly daal di bàyyiloo xel askanu Sénégal ne nañu moytu dundu la Côte d'Ivoire dundoon ci jamono yéenekaay di enquête ne la Sénégal yi di dund rawatina ñi yeewoo di ñàkkum ndox mu tar mi leen tongal robinet yi xelleetuñu daanaka yéenekaay bi jàpp ne lees waxul ci ñàkkum ndox mile enquête ne la ca laxasu bokk na ci maanaam contrat bi SDE am ak nguurug Sénégal moo jëm ci jeex yéen kabi di la soleil daal di ko feelu ne ñàkkum ndox mi jeexagul ci ndakaaru tax na nguur gi nar a soobu ci ndajeb conseil présidentiel ngir xool naka la ndakaaru amee ndox mu doy ak daal di càmbar jafe-jafe tenk ndox mi yéen kabi di sud quotidien xëye mbirum yoon ak dossier Khalifa Sall procès en appel ba yéen kabi am na lu ca bees ndax Khalifa Sall ñàkk na défense ba ba sud la avocat Khalifa Sall fippu daal di faf du moyu ndaje ma ndax gis ne procès gi ni mel politique moo ca la xasu yéene kabi di les échos de ce tribunal di ñu xam leeg avocat Khalifa Sall ne gedd nañu procès ba waaye démb dañ fa yuuxoo juge Demba Kandji ma ñu joxoñ baaraamu ne dañ koo ger ci bile procès les échos ne tey jii la Khalifa Sall fas yéene wax askan wi yéene kabi las ne défense su Khalifa bokkatul ci audience ba ay avocat ne déet xel xalaatatul ñu addu ci ndax jàpp ne procès gi awul ci yoon las mun nañu xaar ci moom déclaration am solo mel génn kaabi di laajte ana nan la Khalifa Sall nara doxalee tey l'évidence daal amal taxaw seetlu ci li tax ay avocat Khalifa Sall ne dootuñ fa taxaw maanaam geddu audience ba bokk na ci wax sa morom weddi doon na lu tumurankel lool ci procès gi ni mel génn kaabi jàpp ne ay avocat Khalifa Sall jot nañoo yombalal liggéey ba kii juge ba ak procureur ba turbine de sa tribunal di ñu xamal ne ci ci ndax ay avocat Khalifa Sall newatuñ ca juge Demba Kandji jot nañ ko fa yuuxoo ca audience ba le quotidien tey la tey tey ji la Khalifa Ababacar Sall war a ubbi caisse d'avance bu mairie bu Ndakaaru tey la fas yéene amal declaration tey la ci fas yéene addu yéene kaabi di vox populi daal di ko feelu na demb ay avocat Khalifa Sall dañoo gedd Sall ba génn gis ne kii di juge Demba Kandji dafa wone PTM leneen lañ ca toftal di Khalifa Ababacar Sall ñoo salfañi ak ak yellee fam ci bile procès rawatina yoon jëfewul dogalu atte bu CEDEAO vox populi ne ndey mbili gi maanaam Khalifa Sall dina ci yëkkati kàddoom tey ngir leeral lu bëri libération ne leer na nañ jot nañ leen a teg loxo ay xale yu jigéen ñi doon jaay seen bopp jaarale ko ci réseaux sociaux yi du pewoon seen page El Paradise massage ndax massage bu rax lool ndax jëfu saay-saay gànca doon def géne cabinet takk der yi ñoo leen teg loxo lañ fa fekk ci ay photo yu xale yu jigéen ci seen salon ba ne ca yoof toll na ci téeméeri photo ak lu teg libération ne yooyu la xale yu jigéen doon jaay seen bopp doon wax ne dañuy maase seen pexe sotteetul maaseetuñu takk der ya mujjee nañ leen maas géne waxtaan ngir waajal màggalu Touba gañu doon amal foofe ca mairie bu Touba disjoncteur mairie ba moo mujjee éclaté loolee juróon tiitaange gu rëy ca ñafa newoon Walf Quotidien mondial bi weesu na fédération sénégalaise bu football démb jot nañu amal potum biir néeg waxtaan nañu seen biir bokk na ci feddaliwaat seen kóolute ci Aliou Cissé jëm ci coupe sas nañ ko moom Aliou Cissé ngir mu gàñe coupe d'Afrique gi ñu jëm gannaaw bu Sénégal lajjee ñetti milliards ak lu teg Sénégal lam ca jot a dépensé toll na ci ñaari milliards ak lu teg reliquat bu FIFA jural leen lu tollook ñaari milliards yéen a kaabiri suñu lamb ne combat Eumeu Sène Bombardier yàggatul ay fana ci des waaye Bombardier wax na laata combat xamal askan wi ne pare na ngir daan Eumeu seen jël gu set wecc Bombardier ne dina def kémtalaay kattanam ngir titre roi des arènes bañ a jóge ci ay loxoom leneen ci ay kàddoom ci suñu làmb Bombardier ne ci googule combat waaye bu sifle arbitre ba jibee du dem day xaar Eumeu Sène mu ñëw ndax moo soxla doon roi des arènes may laaj ñoom ci ñaari mbër yi lee jërëjëf Abdoulaye Bopp ñu ngi lay sant la gërëm di sant tamit di gërëm bu baax a baax Isaaxa Diagne Modou Fall ni mu la fare woon kon ci xarale gi réalisation El Hadji Ousmane Sène ci kàddu gi seen mbokk Seydina Omar Ba ba mbokk ñu yendoog jàmm